lu daganagul ci seen diggante ba ñu war leen a punire tere ko wala boo gisuloo ak tuub koo xam ne dal na sa xel sañ ngaa tere sañ ngaa lànk ne man day duma ko maye képp koo xam ne gis na nag ak tuub te tamit euh, la nga xam ne mooy madhabu fuqaha yi wax ne mënees na leen a maye euh, loola tamit dal sa xel euh, te ñooñu ñu ngi ko basé ci tuub nag bu boobaa sañ ngaa maye sëy bu mel noona mmh. noona tamit Euh, tabaski bi koor gi masala la boo xam ne xilaaf moom moo ci ne jotoon na am euh, waxtaan buñ ca jotoon a def ba tarjix la ñu gis ne mooy raajax euh, waaye daal ñu xam ne masala xilaaf yi la dugg ci dina gudd dina jeexal waxtu bi naam naam naam waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah allo ustaz marhaban allo allo. waaw maa ngi lay dégg. man Gabon laa ootee. alhamdulilah Gabon. allo. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waaw man man Gabon lay oot dama am benn question bu ma benn question bu war a posé. ah. waaw. est-ce que man tax na dañuy dañuy Gabon dañuy fële Gabon dañuy fële à 5h30. Mm-hmm. te man damay yow man damay yow quatre heures quatre heures laa yow commencé liggéey te léegi léegi dama dama xaw a léegi dama dama julli dama dama dama ñaar rakk naa ko nag pare julli dama sama fajar dama continué liggéey parce que heure bi ma war a liggéey léegi heure bi julli fajar cinq heures trente day fekk day fekk day fekk du mën a am jot julli parce que mën naa continué di julli def def ñaar ñaar rakk naa ko nag pare julli dama fajar dama continué sama liggéey parce que heure bi ma war a ñëw pour heure bi ma ñëw pour pour pour liggéey dafa war a bañ ci bële suñu trente parce que man du liggéey du ma am jot liggéey maa yor liggéey jàmm te sama laaj la la la posé man Aliou Diouf xamoon na woote. jërëjëf jërëjëf léegi su fekkee ne nag koor gi nga xam ne lislaam daf koo santaane te waxu ca mutataabia comme ni ma ko waxee ca zihaar ak ca na ko yonent bi salaa sallam waxee ca ka nga xam ne dafa. lekk ci bëccëgu weeru koor euh, si soxnaam ci bëccëgu weeru koor te tey ko mooy waajooju ñëwoon nga xam ne wax shahrayni mutataabiayn bu fekkee ne dafa wax mutataabia mooy yoo xam dafay tegaloo looloo koy tënk mooy day tegaloo mais lu mu boyal tamit day bay bu ne ñetti fan wala ñeenti fan wala nangam dafay boy rek moom duñ ci charte mu tegaloo donte yenn fuqaha yi nag dañ ko ci qiyaas dañuy charte ne dafa war a tataabua ndax nas sa ci waaye nas sa ñëw na ca beneen kafaara mm-hmm. mu ne bu boobaa kon dañu ko cay uh, qiyaas te la boole mooy ñoom ñaar ñëpp koor la gu sharia teg ne kat moom moo war ka nga xam ne moom moo bi ca nangam kon bu bokkee dafa wax ci bële te bu boobaa beneen bu ca tuddul te muy tegaloo bi yamit def cay am su ko defee li gën a wóor daal mooy tegale ko waaye nasu uh, aaya ba maanaam tegale ba ñëw ci naam. waaleykum salaam wa rahmatullah. kay ñu ngi delloo ziar nañu yàlla na ko. yàlla yàlla leer yàlla na fayal boppam. amiin bi jeex. kontaan naa ci li ngeen di def te mbooloo mi it kontaan nañ ci Espagne fii. alhamdulilah. man nag indi sa numéro laa soxla woon. waaw sëñ bi Diop. waaw bu ñu nu mu tudd bu ñu génnee fii boo wootee ci numéro bii rek. moom dinañ la ko jox. incha ok mhm. su ko defee kii laajte nag maandu teg imaam eh, ne dafa war a maandu imaam boo xam ne am na doom bu dul doomu yoon ndax kooku dana tax ñu julli ci ginnaawam déet dafa am ay mbir yoo xam ne dañuy wax ne dafa bokk ca lanu sàkku waaye nag ndax chartalam déet ak sàkku nanu ko ak war na am déet bokkul. Mhm. Ah, yii dafa war ndax comme ni ñu waxee jullit bi dafa war a maandu. Mhm. waaw su fekkee ne maanduwul woon ndax dañuy wax ne du jullit ndax maandute googu sartul islaamam lam déet déedéet waaye dañu wax ne maandute googu mooy matal lislaamam mooy rafetal lislaamam moo koy yéwénal di ko baaxal waaye nag bu maandu wut nag ndax dañ naan du jullit jullit la ba léegi mm-hmm. naka noonu imaam moo gën a yey moom moo war a gën a war maandu ndax la ñuy xaar ca moom ak la ñu koy wóoloo ak la ñu koy dénk loo xam ne du ñu ko dénk ca fa ne keneen ku dul moom ak la ko nit ñi di jiital seen digganteeg borom imaam moo war a gën a ragal yàlla imaam moo war a gën a maandu imaam nga moom dellukaay la war a doon ci nit nit daa war a jàkkaarloog moom sax xelam di xalaat alaxira xelam di xalaat saxaaba yi ak nit ñu baax yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu noonu la war a imaam war a mel saa yoo jàkkaarloog moom mbaa nga déglu ko nga beesluwaat. noonu la imaam war a mel imaam su ko melul nag manqueel na waaye nag. salli xalfa kulli barrin wa faajir hmm. loolu xadiis yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam jullil ci ginnaaw ku baax ku ne ak kàccoor bu ne bu fekkee ne moom la la yàlla nattoo moo jiitu doo yëkkati jaasi ne faw mu jóge fi doo tamit indi ay kalan ak i parparloo ndax loola la cay nekk ci fitna ak lay yàq ca gox ba loola moo ëpp fuuf mooy yàlla goo xam ne ca bopp imaam la yem moo ko def boppam muy bàkkaaru boppam waaw waaye nag leneen la nga xam ne nag bu ñëwee fitna lay doon kooka lam la lislaam di moytuloo te wax ne imaam manduwul kon nag nañ ko fi jëlee ah lu ci bari dina yëkkati yet dina yëkkati ay kàddu dina tëj sax jàkk ko defee kon nag jullil sa ginnaawam bàyyi ko bàkkaaram allahu taala imaam mi ngi may fàttali benn laaj bu ñu laajoon sunu wajur wu tedd bi Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ca benn conférence defe naa bu dul bar ñi di tëngéej hmm. am ci ko ko laaj ni ko ndax ilimaan buy buy doxaan ñu bal ma waxin wi hmm. ndax mënees naa topp ci ginnaawam déet hmm. mu ni ko bu fekkente ñi dangeen ngeen tase ca kër ndaw sa te mu raw la bàyyi mu jiite la waaye jàkka ja moom een ba ca kër ndaw sa bu mu dugg ci néegu yàlla ba waaw fa dugg dina toog ca bunt ba allo bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw Pape ñu ngi siyaare bu baax. jërëjëf ñu ngi delloo ziar. waaw di rafetlu émission mhm. laaj bu ma doon laaj tuuti rek. Mhm. koo xam ne da nga amee woon ci weeru koor. Mhm. ba yàlla àtte weeru koor yu dugg. ndax da ngay continuer weeru woor wii di teew ba noppi doo ko fay loola ak boo ko fayee ba noppi yan teg ki nga dee yan. kii lañ koy teg ba am na hmm. dégg naa loolu. mbo mbokk mi nga xam ne mooy laaj tamit ne euh, julli fajar ñu ngi koy def ci seen réew moomu ca Gabon euh, cinq heures trente waaye moom nag quatre heures lay yeewu bëgg a julli ñaari rakkay fajar teg ca nag julli suba ndax euh, waxtu cinq heures trente da koy fekk mu nekk ci liggéey waxtu ab julli dee su ko julli lu jiitu waxtoom dee su ko génne waxtoom maanaam ndax julli ko ci lu jiitu waxtoom sax génne ko waxtoom la yéexe ko ba waxtoom weesu tamit génne ko waxtoom la te julli nag mooy capitalu waaye gëm wi gannaaw tawxiid gannaaw kennal yàlla moo tax euh, nit ki daf ko war a jàpp fonk ko te defee ko na mu ko mënee julli danga koy defee na nga ko mënee la lay tere julli comme na nga ko bëggee bu fekkee ne lu sunu boroom nangu la ne da nga ko war a téye ndax yërmandeem ne kat may na la nga jàpp ca fexeel ba boole loolu ak julli fa in xiftum fa rijalan aw rukbanan moo xam da ngay war di julli moo xam da ngay dox di julli naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah na ngeen def jàmm rek alhamdulillah ak sant maa ngi gërëm marhaban bik ñaan ñaan euh, sàpp ñaan ci yéen jërëjëf fàttante man de damaa amoon traitement benn laaj laaj quoi. Hmm. parce que damaa nekk fii bitim réew. damaa amoon jafe-jafe ak sama jabar. bu ñëwaatee nag am na ay huit mois yooyu. mais hmm. si eh, digg bi am ay jafe léegi nag ñu ñaan ma baat ma may ko. biir hmm. bi yàggul nag. waa après maa ngi ñoom ñu jubóo. loolu bii may ma moom ba léegi maa ngi koy defal li ma war a defal yëpp léegi nag xaw ma léegi lu nekk ci biir xaw ma vraiment xaw ma lu nekk ci biir maa ngi nekk ak moom wala nekk moom loolu nag moo tax affaire bi jaaxal ma tuuti waaye nag laa woo laajte. waaw da nga koo da nga koo fase woon. Euh, après def mu def un mois nga jëlaat ko. ngeen juboo léegi da ngay laaj ndax juboo boobu mooy rek da nga koy jëlaat léegi wala dafa am lu mu laaj. non laajul dara dañ waaw ma ne léegi nag lan ngay laajte. léegi nag damay laajte ndax ba na dégg nañu waxtu. Hmm. su ko defee euh, kon nag euh, jàpp sa julli julli da koy julli ca waxtoom la ngay jàpp wala la ngay liggéey ci sa mbiri àdduna day mën a ànd ak julli bi. ci na la ko yàlla mayee loolu tamit toujours ñu wax ko na la ko yàlla mayee lépp lu la ci yàlla may jël ko ndax nga mën a boole soo demee ba nga xam ne moom mënut boole ab tubaab la tiim boo xam ne fi mu ne nii yow yaay ñëw wut si moom liggéey yàlla na toogu la tubaab ba jàpp la noot la yeew la ne la doo fi jullee waaye yow yow yaay yóbbu sa bopp foofa mu ne la doo fi jullee nag. waaw ba nga xam ne julli bi commencement ba ba fin ak waxtu woon ko mën a booleel ñoom ñëpp dañuy jàll téléphone booba da ngay bàyyi liggéey ba ndax yaa fa indi sa bopp sa dem wuti sa julli jàpp sa julli yàlla dana la jox lu ko gën amaa nag su dul loolu nit ki bu sësee mën nay julli di dox mën nay julli di war fas naka nag nga xam ne yaa ngi toog mën nga fexe ba sa temps boobu ngay foog ne liggéey julli xaju ci mën nga ko am wax nañ ñu bare bare bari tubaab dina leen may pose bu ñuy dem naan kafe mais dañuy julli daal moom dañuy foog ne foofa du palaasam duñu ko def loolu ñu bari ci ñi nga xam ni seen julli yitteel na leen ci ñu nekk Europe léeg bu ñu déggee question yi bu ñu génnee ñu woo ñu dañu wax ne ñu bari moom dañoo xamul rek waaye man jàppoon naa ne yàgg naa jàpp ne yenn waxtu yu guddi yi tubaab du ko liggéeyoon ndax da liggéey tubaab dafa bëgg liggéeyam jaar yoon dalay may ay pause pause yooyu nag ñii dem di naani café ñii dem di carte wala di def leneen nga dem julli moom moo gën te bul jàpp ne fu tubaab dëgg tànkam foofa sobe la wala fu tubaab moom foofu sobe la déedéet julli fa bu mënul loolu nga mën boole julli yi ñu mën a boole te julli suba moom amul benn julli buñ ko mën a booleel moom kay fa xajar ga fajar ga xare ba jant bi di fenk foofu boo fa amee foo ko mën a julli nga julli ko bu fekkee ne nag amuloo ko ah, nga seet naka nga ko mën a jullee ci biir waxtu woowu boole kook sa liggéey wala boog yaa ngi ca yoon wa di dem bu fekkee liggéey ba yomb la bàyyi ndax yàlla subhanahu wa taala def nañ suñu diine ji ak yombal la ca def su fekkee ne nag moom dara ci yooyu mënta am liggéey boobee mooy daanu waaye julli gi moom day samp taxaw rek waaw julli moom du daanu iqaamatu salaat danga koy taxawal ba keroog ngay taseeg sa borom euh, fay weeru koor ci jamono boo xam ne weeru koor ñëwaat na loolu tamit nas amul ci ne dafa am leneen lu cay tegu allahuma lu dul kooka moom sàggan na li ko war mooy tuub jéggalu ci yàlla subhanahu wa ndax may nañ ko occasion bi mu fayee weeru kooram te fayu ko ba weeru koor ñëwaat kon bu koy bu weeru koor jeexee na fay waaye nag sàggan na na tuub jéggalu yàlla subhanahu wa am na ci fuqaha yi nag ñu wax ne sàggante googee day tax ñu teg ko daan daan ba mooy day bar bay pare kafaara loolu siiw na ci waxu ñu bari ci borom xam-xamu fiq yi ne moom day woor ba pare leel miskin am na ñu ko booleel ñaar yooyu am na ñoo xam ne nag dañ ne comme loola ñëwul ci aaya wala ñëwul ci xadis gis-gisu yenn fuqaha yi la pour euh, yaree ko kooka nga xam ne moom moo def loolee ñu ne kon na tuub jéggalu yàlla subhanahu wa taala ci sàggante gi mu sàggante ci sàggan te mu woor la nga xam ne moom la ame wallahu aalam waaw ki nga ki nga xam ne moom dafa fase soxnaam mu am weer ñu juboowaat bu ñu juboo waatee na jël soxnaam bu ñu juboo waatee na jël soxnaam maanaam fii ak idda bi jeexul muy ñetti mbaax mbaa ñetti laab yoo xam ne gis na mbaax ba laab ñetti yoon bu boobaa ci ñetti weer yooyu moom mën na jël jëlaat soxnaam te soxnaam la bu fekkee ne fase eggul ñett mm-hmm. waaw su fekkee ne nag bàyyi na ko jëlaatu ko ba ñetti weer yi jeex mooy idda ba jeex na takkaat rek soxna sa jàmbur lay mujj doon waaye ki ñu fase mu nekk ca iddaam kooku soxna yi ka ko fase la ba léegi kooku soxnaam la bu deewoon da koy doon waaw bu deewoon da koy doon ku ca dee ñoom ñaar sa morom da lay doon ndax sëy ba idda ba jeex moo koy dokk moo tax bu soxlawaataan soxnaam da koy dem jëli rek du jar seede du jar cen du jar dara bu soxna bu paree nag lay wax ne ah maa ko fas woon bu fekkee fa fa fase ba eggoon daal mu eggale fa ne jëlaat naa sama soxna jeex na pour ñooñu xam waaye nag euh, soxnaam la ba ko bu ñu bu ñu juboo woon ca euh, bëccëg ba euh, nekkaat na soxnaam ala kulli xaal cent pour cent bee nag xaw xawoon naa génn waaye nag génnul lépp ba idda ja jeex ba idda ja jeexee nag génn na ba set wecc bu boobaa kooka takkaat rek moom moo cay war wallahu taala alam te benn weer